كنتم في برنامج من حاج الآبدين إلى الجنة أقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرين نور مبي جام نحن نعنع المسلمين والمسلمات في كل مكان لا سيما سنغاليين بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريفة عليه الصلاة والسلام وبعد bokk auditeurs yi rajo Xassida online dellu si nañ weneen yoon seen émission bi ñu tudde min xaajul aay bi din ilal jànn te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal muy leen di jéggulu dimanche bi weesu li sax émission bi amut mooy yaram wa xaw a soogi ñaaga da ngeen di leen yoon li tax tey émission bi yeex a tàmbali xam ngeen ni daanaka takkusaan leen mu jot ci majalis bi kon xam naa waxtaan wi na mu war a yaatoo du ñu yaatoo loolu moom dafa aju ci mbirum machine rek ngeen baal na ko incha allah mu mel ni sunu mawdu tey ñu ngi bëgg a waxtaane tuuti ci mawaahibu rasul alayhi salaatu wassalaam may yi nga xam ni wala jagle yi nga xam ni gën gi mbindeef alayhi salaatu wassalaam suñu borom jagleel na ko ko rabbi sit wa jàll maa ci weeru rabiul awal rabiul awal di weer bi nga xam ne ci la sayyidul awalin wal axirin dikk addina di sangub lépp yàlla bind al yawma saaniya asra mooy fukki fan ya ak ñaar ci la rasulul ahsam dikk addina alayhi salaatu wasalaam yonent boobu nga xam ni moom la yàlla wax ni ko diine ji ma jox moom rek laa considéré muy diine jeneen diine judul sa diine jooju aw ma ci soxla axakay naam yonent yi ko fi jiitoon alayhi salaam diine ji yonent yàlla muhammad amee woon moom lañ amee mooy lislaam waaye bi nga xamante ni yor nañ lislaam jooja lislaam jooja toll ci diggante enseignement primaire ak enseignement secondaire bi nga xamante ni Moussa ñëw na ak ya ko jiitu woon toll ci enseignement primaire Isa ñëw toll ci enseignement secondaire nga xamante yàlla Muhammad ñëw na alayhi salaam toll ci enseignement supérieur nga xam ne moom enseignement am amatul luñ ci yokk amatul luñ ci wàññi laa naxasa wala siyaada ndax mat na ci biir mat ci biti moom ñu ko yore di gidd bi mat ci biir mat ci biti moo tax suñ borom ni ko wa man yabtaqi gayra al islaama diinan falan yaqbala minhu wa huwa fi l axirati min al xaasirina suratu diine ji ma la jox mooy diine ju complété ji képp koo xam ne bàyyi na ko fi di wut beneen diine wala muy beneen yoon wala beneen solution budul bi nga indi yow man xiyaam du ma ko nangul ay jëfam ci saahir ci baatin waaye du ma ci yem day bokk ci way perte ñi ëllëg yow man xiyaam akbar yonent boobu nag moo dikk dina ci weer wi ñu nekk di fukki fan yi ak ñaar ñu di ci ndokkeel ci ni ma ko waxee ci arab ci njëlbeen gi al alamul islamiya jullit ñi muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ci bépp bërëb bu ñu mën a nekk mu ne waaye nag rawatina waa Sénégal ci lan laa leen di ndokkeel mooy munaasaba bi nga xam ne moom la ñu dëgmal muy ixtifaal bi mawlidi rasul alayhi salaatu wasalaam te mooy juddub yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ñu dëgmal yonent yi ko fi jiitu woon alayhim wasalaam ñoom ñëpp def nañ seeni déclaration wax way toppat yi leen toppoon ñu noddu de ashadu an laa ilaha illallah ashadu anna muhammadan rasulullah fi jiitu woon alayhim wasalaam muy Moussa Ibrahim muy Nuux muy Luut muy yonent yàlla Ayooba muy Yanqoob muy Yuusuf ila axiri ila axirihi ñoom kenn ku nekk wax nga say way toppat ñu leen dana am beneen yonent buy ñëw boo xam ne mooy nekk dernier yonent alayhi salaatu mooy Muhammad ibn Abdullah léegi nag Moussa Isa mi nga xam ne moo mujj ci mboolem yonent yàlla doon envoyé Moussa moomu kii Seydina Isa alayhi salaatu wasalaam moom mu mujj ci yonent yi nga xam ne ñoom la yàlla doon envoyé ci jaamam ñi Isa moo ci mujj isaa mi ci mujj moom dafa jaar ci tur yonent yàlla Muhammad xappi wane ni mooy yonent bi nga xam ne yonent fi jiitu woon ñëpp daanañ ko junji man naa leen ko leeralal te mooy yonent bu ñuy wax Ahmad alquran ni wa mubassira bi rasulin yaati min baxdi ismu ahmad dana leen dikkal man Isa maa ngi leen di bëggal yéen ñi nga xam ni yéenay sama nit ak yéen ñi nga xam ni yéenay ñëw sama gannaaw maa ngi leen di bëggal ci benn yonent bu ya ahmad boo xam ni dana ñëw bu ñëwee moom rek la yàlla di reconnaître mbiram képp ko xam ne topp nga ko da nga mucc ku ko mooy nag gisuñu la mbaaw yomal xiyaam loolu moo nga ci sóoratu safi yonent boobu sallallahu alayhi wa mu nekk sayyidul awwalin wal axirin waaye nag ci coobare suñ borom ak sañ-sañam ak kàttanam ndax suñ borom rabbi soo jàlla dafa nekkoon ndàmb lu kenn xamut ba dara amagul moom rek mu ne fi di càppaa coli ma la ko doon misaal mu mel ni yow moo xam ni da ngaa jënd doomu koko koko bi xam ngeen ni am na der bu dëgër bu ne ci kaw der boobu am na beneen der boo xam ne ni moo nekk ci kaw ñam wi ñam moomu am na beneen ndox mu nekk ci biiram ndox moomu nga xam moo nekk ci biir li feeg xolli woo der wi ci kaw naka noonu nga daal di xar ñam wi doo mën a jot ci ndox mi ba xam ndox mi nu mu mel ndax saf na xorom wala saf na suukar ndax dafa xonq wala dafa ñuul ndax am na vitamine wala amu ko faaw da ngay mën a jot ci ndox mi rek suñu borom nag noonu la meloon dafa nekkoon ndàmb loo xam ne ni kenn xamu ko nee na nee na ma bëgg nit ñi xam ma ma daal di tibb ci sama leer bind ci yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam ni mu ko waxee ci xadisul qudsi kuntu kanzan lam axrufi nii fa aradtu an taxrifuuni fa xabat min nuuri fa xult kun abdan lillah fa yakunu muhammad alayhi salaatu wasalaam mu ne bi nga xamee nekk naa ndàmb kenn xamuma ma daal di ci bugg sama leer ñu ko nekkal sama jaam ngir bëgg nit ñi xam ma mu daal di nekk sama jaam di muhammad alayhi salaatu wasalaam nga xam ne kon ni nga xamee ni sallallahu alayhi wa sallam nee na suñu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne mooy aju dogal ji ci mbaaxam ak yërmandeem moom mo dogal keroog bi nga xamé ni yalla di mën a ruu yépp yépp yëpp ñu ngi dajé sun borom bëgg leen examiner xam ba xam kan ci ñoom ñoo gëm kan ci ñoom ñoo gëmut ñen ñooy weddi ak ñen ñooy top sun borom daf leen gëdd daan ni alastu bi rabbikum xaale bala mu ni keroog bi sun borom gëddi ruu yi lu ndax duma seen borom ruuxu yent yalla muhammad alayhi wasallam lu borom may mu mëna jikko tontu. tontu lu dog ne balaa yaa rabbi axa kay yaay suñu borom yeneen yu ci des yëpp door cee topp nga xam ne kon suñu borom ca ësal la ko tàmbalee defal ak jagle mu nekk tax taxsiis ci moom nga xam ne mooy ki jëkk a tontu question yëpp suñu borom rabbi situ jàlla ci ndax du ma seen borom moo tax sax nga gis sëñ Tuubaa radiyallaahu taala di wax ca jasbul euh, qulub naan salli wa salliman ala man qad ajaaba bi balaa yawma alastu awala qabla qabla sawi takalumi mu ne moom sëñ Tuubaa maa ngi lay digal yow jaam bi salli wa man ala man a ajaaba bi balaa maa ngi lay digal ma nga julli tey sëlmal ci yonent bi nga xam ne keroog suñu borom ne alastu bi rabbikum ndax du mu seen borom nee na moo jëkk ni ah kay balaa mu ne lu jëkk doomu aadama yi di wax nekk leeruk suñu borom kon bu bàyyi koo ci leeruk suñu borom misaal naa ko ba tey ci bi nga xamante ni benn nitu yàlla tasawuf la boo xam ni dafa bokk ci falaasifa yi gën a mag di xalaat xalaat yu kawe. benn bis mas nay xalaat ci li ñu wax ni alkamaalu lillaahi yàlla rek moo mat te mu gis ci téere yi am benn shaayir bu wax ni muhammad sallallahu alayhi wa sallam kaana nooran qabla an yakuna jasada muhammad sallallahu alayhi wa sallam leer la woon lu jëkk muy nekk matière bi mu daata nekk matière leeru kese la woon mu ne léegi leer googu suñ borom ak addisi xutsi bi mu wax te suñ borom maa ngi tibbi sama leer dund ci yam ci yàlla muhammad alayhi salaatu wa salaam léegi nag kooku nga xam ne mooy mutasawif bi kooku nga xam ne mooy philosophe boobule bi mu xalaatee ni man daal dëgg dëgg dëgg sama bopp ci li mu wax ni alkamalullahi yàlla rek mooy aji mat te yàlla nee na tibb na ci leeram bind ci yoon ci yàlla Muhammad kon kay manqué na mu daal di toog ba yàgg mu daal di tibb suuf ngëb daal maa ngi waat ci yàlla ni bu fekkente ni ngëbub suuf bii delloo ma ko ci suuf si bu nettee suuf si suuf si dana manqué ah kay naam wax na dëgg de. mu ni mu waaxu ba ci géej ga daal di tànk kaasu ndox ni maa ngi waat ci màggug yàlla gi ni géej gii bu fekkonte ni nii de natt nañ ko te delloo ma ci kaasu ndox bi géej gi dina manqué mu ko ah kay naam mu ne kon nag mënuma comprendre alkamaalu lillaahi ba noppi mu ne yonent yàlla Muhammad ci leeram suñu borom la ko suñu borom ti bind ci leeram daal di koy bind moom yonent yàlla Muhammad mu loolu mënu ko comprendre yàlla dogal nag benn bis mu toog ba guddi mu am masxala mu bëgg yër léegi bi nga xamante ne bëgg naa yor masala mu daal di taal benn sondeel fekk mi nga amee juróom-ñaari sondeel léegi bu mu taalee sondeel bu njëkk bi ci beneen wu almet bi sondeelu ñaareel bi mu taal ko ci tàkk-tàkkal moroomu sa sondeel bi mu di ko def di ko def ba juróom-ñaari sondeel yëpp jeex mu gis ni tàkk-tàkkal sondal bu njëkk bële ak bu mujj bi ak bi ci diggante bi ñoom ñëpp ñu ngi boyee ci tàkk-tàkkal sondal bu njëkk be te wàññiwul dara dara dara ca leeru sondal bu njëkk bële wàññiwul tàngaay wa wàññiwul leer ga wàññiwul dara ci moom te it ñoom ñii tamit wàññiwul dara ci seenu leer ñoom ñëpp kenn nekk ma nga leer na mu war a leer ak di tàkk na mu a tàkk di tàng na mu war a tàngi mu dal xalaat nag ni ndeem sondal rek moo mën a tibb ci leeru boppam dal di def morom sondalam te du wàññi dara ci ak leeram axakay kon alkamalu lillahi suñu borom moo tibb ci leeram bil misli yonent yàlla Muhammad moo tax waykat beneen kaana nuuran qabla an yakuna jasada noonu la ko sëñ Tuubaa waxee radiallahu taala anhu ci bi mu waxee ni nubugtuhu xablal bara yaa qaddin jalat lahu sabqu hiinal jaddu fii tiinu yuxsanu mu ne moom sëñ Tuubaa maa ngi leen di misaal di leen xibaar ni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam keroog bi muy recevoir nubuwa nubuwatu risaalaam ba mu koy recevoir nee na boobu fekk na maamam mi nga xam ne mooy abul basar di sunu maam aadama boobu moom benn obse dong bu yàlla tën teg ko fee mu nekk suuf ak ban ak ndox te defagul ci moom ruu jamono boobu la ci yàlla Muhammad moom di recevoir ak nubuwatoom nga xam ne moom dafa judduwaale ak nubuwaam judduwaale risaala dëgg la yonent yëpp alayhi salaam dañuy judduwaale seeni nubuwa waaye risaala gi dañuy dem a dem ba am 40 ans yàlla door leen a jox risaala gi wala ñu dem ba am 30 ans ni ko yonent yàlla Isa yàlla door jox risaala gi yonent yàlla Isa rek lañ xam ci ko am. trente ans et quelque ñu jox la risaala waaye yonent yëpp alayhim wasalaam biñ leen daataan jox seeni risaala dañoo am quarante ans ni ki yem ci yàlla Muhammad sax kasaalika waaye gis nga yem ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom dafa teel a rasuwaar nubuwaam teel a rasuwaar risaalatoom gi moo la tax moo tàmbalee def al mujiza te ba nga xam ne la judd rek la tàmbalee def mujisaat yi mu doon def waaye bu ñu xoolee yonent yonent yi de yëpp ba taklif ba nekk ay magi jëm looga mën a def mujisa waaye kon waxtaane mu'jiza taxul ñu jóg li ñu waxtaane rek mooy mawaahib yi nga xam ne ni suñu borom defal na ko Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Tuubaa ni nag ba suñu borom di jox Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak risalatoom booba yent yàlla Muhammad mu ngi nekk leer goo xam ni maamam aadama moom bën bi ñu tën rek la te nekkul doomu aadama moo tax suñu borom ne ko wa allamaka maa lam takun taxlam wa kaana fadlu alayka azima aha kay yow yent yàlla Muhammad man yàlla maa la xamal ba ma xamalagul kenn maa la mënal ba ma mënalagul kenn maa la defal ba ma defalagul kenn maa yëkkati sa daraja ba ma yëkkateegul darajay kenn mu ni loolu daal digg digg xool naa ko xool xool man yàlla waaye gis naa ni mbir mu yéeme la lu màgg a màgg la yàlla ci boppam moo toog ba yàgg mu yéem ngëneel yi mu def ci yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ba tax mu ne ko wa kaana fadlullahi alayka azima ma nga sóoratu nisaa gis ni kon yonent boobu alayhi salaatu salaam mooy sayyidil awalina wal axirin waaye mooy sangub lépp lu yàlla bind mooy sangub lépp lu yàlla bind moo tax képp kuñ koy dendaleel du nawleem képp kuñ koy dendaleel du moppandoom dëgg la sunu morom la ci doon doomu aadama mooy nit la ñuy nit waaye nag yàlla def na ci moom lu amul ci ci des yàlla tànn ku nu mu tànniwul kenn defal ku nu mu defalul kenn bokk na ca. suñu borom bi suñu jàll def na ci moom ay xeeti jikko xeeti makaarima axlaax yoo xam ni bu ñu jëloon garab yëpp soppi ko ay xalima jël géej yi soppi ko daa ñu bëgg a waxtaane jikko yont yàlla muhammad alayhi salaatu salaam bëgg a waxtaane mootum alayhi salaatu salaam wallahi xalima yëpp dana jeex géej yëpp dana ñu jeex te duñ jeexal ngëneelu yont yàlla muhammad alayhi salaatu salaam duñ ko mën a jeexal alxuraan nag daf koo tënk rek ci benn aaya ni ko wa innaka la ala xuliqin azim ca surat xalam ah kay man day man yàlla mi la bind te moom la yër naa la biir yër la biti ni nga modesté ni nga jube ni nga maandoo jikko yi daje ci yow xeeti makaarima axlaax yi ni nga mën a toléré loolu daal dëgg dëgg seet naa ko man yàlla biir ak biti ba yéem na ma ba tax na mënuma koo ñàkk a bañ wax kon daal taggee na ala sa jikko ju rafet joojule te mooy wa innaka la ala xuliqin azim maa ngi giñ ñi <coughs> ngeen xaw a sëñ maa ngi giñ ni mboolem li ma bind lépp yaa ci gën a màgg jikko gën ko cee rafetle gën ko cee le bu ñu seetee mu fassiroon yi nga xam ni ñooy firi alquran gis nañu ni baat boobu wala aaya boobu suñu bon wax gis nañu ni yàlla da caa dëxëñ fukki jikko waaye ëpp na ko ñoom fi seenu dégg tool ak fa seenu gis toll rek fa lañ waxee waaye lu yàlla dajale ci yéen ci yàlla Muhammad ci xeeti jikko ak melokaan ëpp na fukki jikko ak fukki melokaan waaye nag ñoom biñ ko tënkee ci fukki jikko yooyu dañ caa jëkk a jël jikko ji ñuy tudde asabru mooy muñ yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam way muñ ñëpp boo leen dajale woon moo ci dàq muñ li mu daj ci tiis li mu daj ci naqar li mu daj ci balaa waaye ànd ak loolu lépp day moom bu muñ rek ngir jëm yàlla ñaareel bi mooy en vëkkuru sant way sant yàlla yëpp boo leen dajale woon yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ci dàq sant yàlla daañu gis daana tëdd guddi jóg di naafil la di naafil la ba tànk yi neew yi mujj soxnaam suñu wax sayyidatuna Aïsatu radiyallahu taala anha ni ko yow ki yàlla yónni sa bopp yow yàlla wax na ci alquran la mbaa yàlla ne la toppatu la dara bu la neexee tëddal nelaw ana lan sa bopp yaa tax suñu borom naan inna fatahna laka fatan mubinan li yaxfira laka lahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'mata alayka wa yahdika siratan mustaqiman mu ko ah kay ko kon léegi nooy sonal sa bopp mu ne ko ah afala akun abdan shakura xanaa man kon du ma nekk jàmm bi delloo yàlla njukkal doon ab santaa kon gis na kon a sukuru bokk na ci ay jikkoom beneen bi ci des mooy ak suhdu dëddu addina yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam way dëddu boo leen dajale woon moo ci gën a dëddu addina yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam toog na bis këram ñetti fan ci mu teg ko fa mu génn waxtu tàkkusaan ànd ak Abdullahi ibnu Omar wala Abdullahi ibnu Abbas ñaari Abdullah yooyu kenn la ci bu ñu àndee mu dox ci ginnaaw dëkk bi gis ay tàndarma yu tàbbi yonent yàlla Muhammad di gaaw di for di lekk mu gis Abdallah taxaw bañ a for mu ne ko yow doo fora mu ne ko waay tàndara mayu lax yi man lu ma koy doyee yonent yàlla Muhammad ne ko ah man de doyee naa ko dara ndax man maa ngi nii tey la ñetti fan yoo xam ne sama kër ci tekku fa bu waxee loolu rek jibril mi cëpp ci kanamam ni ko sa borom nuyu ne la listuuti mu dégg yëngu bu foor ci gannaaw mu geesu ni waaw jibril kii kana mu ne ko kii mooy Mikaayil booba yonent yàlla Muhammad lu mu gis lu ko jaaxal Jibril la koy laaj <coughs> nee ñu sax bi nga xamee ne defagul al isra wal mihraj yàlla dogaloon na Jibril la ko ëppoon xam-xam waaye bi mu demee al isra wal mihraj ba dellu siwaat nag léegi mën naa jàng ak Jibril ñaari junni at mu xam du jeex mu ne Jibril ki kanam mu ne ko Mikaayil mu ne ko lu muy dox mu ne ko suñ borom moo ko yebal dafa dégg sa baat bi nga wax léegi mooy am nga ñetti fan sa kër ci ñu teg ko fa nee na bu la neexee nga jox ndigal Mikaayil mii ñaari montagne yi ci fi munawara yep mu soppi lako or inshallah allah muhammad ni ko laa il munawara man lu ma koy doye man ma ngi melni ci adina waajo xamni dafa dox di dox di dox ba ñakato xit romb garab bu sedd mu nopp rek pour euh, yaramam fen bi mu jogat lu may doye ñaari montagne yi wurus ci adina baxna kon gis ni asuf dom doom dudd gi mu dudd àddina <coughs> ngeen balma <coughs> Mhm. soo xadim day sëqat foofu ci ginnaaw di ma toppandoo gis nga kon assuxdu moom moo ci raw ñëpp a tawaadu toroxlu yonent yàlla Muhammad dafa modeste ba nga xam ni li ñu tuddee nit ku woyof nit ku neex a jëflante yu arab yi tuddee layinu jaanib nit ku nooy ku mën a jëflante ñëpp def nit ku xam ku xamul mag ndaw ñëpp la mën a jëflanteel ngir tawaadux rahma yërmande bokk na ci fukki jikko yi boo xam ne mu fasiroo ni lim nañ ko ci aaya boobule mooy ku bari woon yërmande la moo tax sax mu waxal boppam ni innama anna rahmatun mudaatun man day yërmande kese laa ju yàlla yabal ne ko aw xeetam maanaam kaddu yërmande laa ñeel sama xeet al aya kersa neeñu dafa amoon kersa ba nga xam ne nagu bëtam bii nit mënu laa wax nu mu mel mësta si ji xool kenn ndax kerse am al ibaada jaamu yàlla loolu moo ci mën ñëpp daf daan jaamu yàlla ba tànk di néew yi ni ma ko waxee sàqaa tabe mësta denc dara lu am joxe na ko ngir yàlla def ko ci yoonu yàlla al ilmu lawet noonu tamit kat al adab teggin way am teggin ñëpp bu ñu dajee yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam moo ci ëpp ay teggin ni ko sëñ Tuubaa waxee nee na yonent yàlla muhammad dafa ñëw ngir jàngal yonent yi alayhi wasalaam ay teggin nattaloo nga yonent bi dafa ñëw sax di leen jàngal ay teggin alayhi salaatu wasalaam kooku mooy ki nga xam ni moom la yàlla wërsëgale xeetu wala xeetam bi mu nekk teraanga ci ñoom teraanga ju màgg ju rëy nekk xiiwal nihmatun min allah alxuraan wax na ko suñ borom nee na yéen way gëm ñi day bu leen maa defal dara ba delloo ma njukkal ñu ne ko lu tax muy defal naa leen teraanga joo xam ni ba ba ngeen di dee bu ngeen ma ko doon jéem a fay du ngeen ko man ñu ne ko teraanga jibil jan la mu ne la qad manna allahu ala almuminina is baasa fihim rasulan min anfusihim mu ne ax ah kay damaa tànn ki gën ki gën ci mboolem li ma bind di xéwali kese di teraangay kese di mucc kese ma jagleel leen ko yéen jullit ñi rek mu ne bi ma ko yónni mënoon naa ko def malaaka wala ma def ko jinne waaye déedéet min anfusikum dama ko def muy doomu aadama ni yéen li leen di metti lépp di ko metti ba bi metti tànk yi metti siburu feebar ñàkk am ñaan yàlla nangu ñaan mu bañ a nangu lépp di ko dal ni leen di dale yéen doomu aadama yi nga ay nit yi kese ngeen ngir lan ngir ngeen mën ko cee roy ngir ngeen ko cee roy li ma waxoon ni moom yërmande kese la ba tax ma ne innama ana rahmatun mu'datun alxuraan nee ko bu ma la yónni dama bëgg nga nekk yërmande kese ñeel doomu aadama yi wa ma arsalnaaka ila rahmatan lil alamin suratul anbiya bu la yónni dara taxul ma yónni la lulu rek ma yërëmal ma sama jaam ñi man yàlla moo tax ma yónni la ci ñoom moo tax daañu gis ni mboolem ñi nga xam ni yërëm lu yàlla sàkk yàlla muhammad moo ci ëpp yërmande ci loolu moom yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam yërmande kese kese kese kese la am na benn bis muy romb benn jigéen ñu ngi amee doomam di ndaw ñu ngi aayoo di fóon di napp nappal yonti yalla muhammad Muhammad xool ba yàgg alayhi di salaam mu ni saxaaba yi waaw gis ngeen ndaw si de mu ne waaw mu ngeen gis mu ne moom da xam naa daa yërëm xale bi ak ko yërëm mu ne gis ngeen ndaw si li muy yërëm yërëm doomam ji <coughs> ngeen bal bi li muy yërëm yërëm doomam ji yalla moo gën a yërëm jaamam ñi ni ndaw si di yërëme doomam naka noonu moo dem ci yàlla muhammad yërmande jim ëppal ëmbal jaam ñi moo fawqa yërmande ji nga xam ne moom la jaboot di ëmbal ay doomam moo tax suñ borom ni ko wa ma arsalnaaka ila rahmatan lil alamin yàlla di signé ko mu nekk buntub suñ borom ci kaw suuf nga xam ne képp ku jóg jëm ci yàlla te jaaroo ci yonent yàlla muhammad suñ borom nee na li nga yor lu niru niru lu baax awma ca soxla moo tax woykat bi ni ko wan anta baabullahi kulla imrihin ataahu min xayrika laa yadxul yow yonent yàlla muhammad yaay buntu yàlla ci kaw suuf képp koo xam ne jëm na jëm ci yàlla bu jëwru ci yow yàlla amul ci moom soxla ak lam yor lu niru lu baax yàlla amul ci soxla daañu gis ni sunu sëriñ ba Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu bi mu jógee jëmi ak fiitu boppam ak ngoram tax suñ borom sànni ko ab jëneer jëneer boo xam ni yàlla lay tegtale mu daal di dogu waaxu jëm ca jëneer ba mu mel ni yow muy dox guddi seen safar wuy tàkk nga dëgmal ko rek sa dëpp suñ tub àndoon la def suñ borom def ko sànni ab jéenéer waaxu jëm jéenéer ba ndekete jéenéer ba suñ borom la ci boppam rabistoo jàll mu waaxu ba ca suñ borom dan ni dallaa ni allahu alallaahi yàllaa ma tegtal yàlla su borom ni ko wa man anta mu ne ko ana Abdul Xadim yow yaay kan mu ne man may Abdul Xadim mu ne ko man ma aka kan nga àndal mu ne ko nafsi man rek ma ànd mu ne ko ah am na sama jaam bu ñuy wax Muhammad Ibn Abdullah damaa siñante woon ak moom contrat ni amul kenn kuy agsi fii fi man yàlla te jaaroo ci moom te man yàlla xam nga du fecc wala de kon nag. dalal di delu ci mom motax nga deg seigne touba ni dallani ala muhammadin wa xaada muhammadun li samadi mu ne ma demé ba ci yalla yalla ma tektal muhammad ne muhammad mo ne kenn du ak sa fi man ci mom neena ma waxu ba muhammad ma yalla tektal neena na yagge rek yam ci yalla muhammad tie sama loxo man ma delu ci wat ma ci sun borom rabbi su indi wat ma ya ba ci yalla mané kon loola tax kat bu ni ko nak anta lahi kulla imrihin ataahum min xayrika laa yadxul képp ko xam ne nii yaa ngi dégg muy wax ak lu mu la niru niru la muy wax lu mu la niru niru xam-xam wala mu lay niru lu am njariñ wala mu lay niru lu baax ak lu wax ja rafet rafet bu fekkente ni dalay wax ngir bëgg laa wane ni sëñ Tuubaa moo fare ko yonent bi nax na la bay boo jàppee ko seytaane bay ba jàppee ko ku réer képp ko xam ne nii ngi lay jéem a jëlal benn jaam di la ko tegal ci ko yonent yàlla Muhammad bay ba nga jàppee ko saytaane nax na la sëñ Tuubaa toog na bis nit ñëw ni ko mbakke bu yàlla wéy yonent bi wéy mu ne ko dooma fa fekk ñooña fuñ ne fa laa ne demee laa dem dooma fa fekk de te moom loolu la waxal boppam moo tax nag mu ne yonent yàlla Muhammad amul mappandoo sëñ Tuubaa ko bind xëy na incha allahu rabbi waxtu wi bu ñu ko mayee yonent boobu nag lu muy baax baax terewul nag yàlla ni ko am nga ay référence am na ñoo xam ne man yàlla maa leen bind def naa ci ñoom ay qualité qualité yooyu mat naa jël ci ñoom yéen baal xaw a soj mu ne ko am na am ñoo xam ni man yàlla def naa ci ñoom ay qualité donte yaa leen ëpp daraja donte yaa leen gën a xam yàlla donte yaay seen sang waaye def naa ci ñoom qualité yoo xam nag war nga ko royee ci ñoom moo tax alquran ni ulaayika lasina hadda allahu fa bi uddahum axtadi axa kay suuratu an suuratu anam yow Muhammad wa sallam sama jaam ñii am na si ñoom ñoo xam ni def naa si ñoom ay qualité yoo xam ni bëgg naa nga roy si ñoom ndax ñoom man yàlla maa leen orienté te qualité yooyu nekk si ñoom maa ko def ci ñoom moo tax ma ne nit ki lu mu baax baax mënta ñàkk référence yant yàlla Muhammad li muy baax baax teewul yàlla jox ko ay référence moo tax mu ne ko wa tabbih millata Ibrahima eh, Ibrahima anifa wa tabbih millata Ibrahima Ibrahima anifa ma kaana minal mushrikin mu gis ne kon yant yàlla Muhammad sallallahu kep ko xamni yaangi yow say tank jëm suuf sa bop jëm kaw da nga ko wara bëgg ba gënal la sa nday gënal la sa bay gënal la say dom gënal la say bok gënal la sa alal gënal la sa lepp kep ko xam nak yonent yalla muhammad alayhi salaatu salaam gënalu la sa ñaari wajur gënalu la say dom gënalu la say bok gënalu la sa fami gënalu la sëriñ bi nga aju ci mom gënalu la kep ko yalla sàkk gënalu la lepp lo am ci alal gënalu la lepp lo am ci ay bien na la ni sa ngëm matut loolu alquran ko wax ngor wa na yàlla neena na bi sallallahu alayhi wasallam qul in kana abaakum wa abnaakum wa ixwaanukum wa aswaajukum wa asiratukum wa amwaal akhtaraftumuha أقترفتموها وتجارة تخصون كسادها ومساكين تردونها أحب إليكم من الله ورسوله والجهاد في سبيله فتربصوا أتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي قوم قوم الفاسقين سورة التوبة ثم برام دفني يوم محمد صلى الله عليه وسلم وحال مصر جامي ملن لفيك feeg بيالين ba سيني باي gënal seeni baay ak seeni ndey li feeg demuñu ba yaa leen gënal seeni doom li feeg gën demuñu ba yaa leen gënal seeni soxna li feeg demuñu ba yaa leen gënal famille bañ bokk bépp li feeg demuñu ba yaa leen gënal mbooleem alal ju am li feeg ba yaa leen gënal seen grade sel am mooy R plus 4 yeeg R plus 5 yeeg R plus ba bëgg giñ ma bëgg moo faw xa nañ bëggee seen alal yooyee ak seen doom yooyee ak seen soxna yooyee ak seen baay yooyee ak seen waajur yooyee ak seen njaboot doogee ak seen famille boobee na la wóor ni ñoom seenu ngëm matagut xam nga seen ngëm di mat mu ne nag koo ci xam ne yéen ci yàlla Muhammad gënoon la sa mboolem say bokk gënoon la mboolem sa njaboot gënoon mboolem say baay mu ne mën a wóor ni mbirum yàllaa ngi fex jëm si ci yaw te nag bis bu ñëwee nga xam ne yàlla ñëw na mu ne man yàlla nag du ma jubal ab saay-saay kon balaa sa ngëm a mat yéen ci yàlla Muhammad dalay gënal sa ndey sa baay sa doom say soxna say jabar eh, sa sa sa sa famille sa alal sa air plus yëpp yonent yàlla Muhammad daf la ko war a gënal sa ngëm doog a mat bu ñu xoolee nag sëñ Tuubaa moom aaya alquran bii moom daf ko dund xam nga lu sëñ Tuubaa wax waxoon naa ko ci waxtaani màggal gi mosumaa gis wax juree nii ak ku ko wax moo di daf ni maxat mahabatiyal muxtaara sayidana xubbal maqane wal ahlina wal walada danii wa ahli wa awlaadi fidda aw lahu abdan xadiman mustaana di sanada mu ni man sëñ Tuubaa maxat mahabatiyal muxtaara sayidana mu ne sama xol effacé wu na ci sopp keneen ku dul yonent yàlla Muhammad sama xol effacé wu na ci bëgg keneen ku dul yonent yàlla Muhammad ñu ni déet waay mu ne samay soxna samay nopp na ma yàlla baal mu ne samay soxna yonent yàlla Muhammad moo ma leen gënal sama waa kër samay taalibe ndax wa ahlina la wax samay samay taalibe ñu ne ah mu ne ñoom ñëpp yonent yàlla Muhammad leen gënal samay doom wala awlaad mu ne samay doom yëpp yéen ci yàlla Muhammad moomu leen gënal wa ahli mooy sama famille nee na bépp yéen ci yàlla Muhammad moo leen ko gënal kon ñu gis ni moom sëñ Tuubaa nee na soxnaam yi taalibeem yi doomam yi bokkam yi ñëpp ñëpp ñëpp tànn na yoon ci yàlla Muhammad teg ci seen kaw mu gënal ko ka ñooñee mu ne bu fekkonte ni luñ koy jote la moom sëñ Tuubaa nee na bu fekkonte ni yoon ci yàlla Muhammad ku ñuy jot la ku ñuy jot la nee na bu kerogee danaa boole samay soxna samay doom samay bi aju ci man ñëpp ak sama famille bi ma bokk ñëpp danaa leen jël jote leen yoon ci yàlla Muhammad mu ne ki wax wax ji bu ngeen xam lu mooy kan mu ne abdan mooy abdul xadim mooy ki nga xam ne du jaamu kenn ku dul yàlla du bokkal yàlla kenn mun waaye mooy jëwriñ yonent yàlla muhammad mooy jëwriñ yonent yàlla muhammad kon li ay quran bi wax sëñ Tuubaa daf koo dund mooy dem ba sa lépp nga tànn yonent bi mu gën a la sa lépp yonent bi gën a la sa lépp alayhi salaatu wasalaam alquran daf na wax nañu an nabi awla bil muminina min anfusihim képp kenn ci yéen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën a yey ci yow sa bopp yonent bi la war a gënal sa bopp nit bi awlaa bil muminina min anfusihim kenn ku ne ci yéen alquran la de na nga suurtu ahsaab suñu borom ne ne kenn ku ne ci yéen yonent bi sallallahu alayhi moo la war a gënal sa bopp li fii ak demoo ba yonent bi gënal la sa bopp na la wóor ni sa ngëm yàlla lislaam des na Seydina Omar radiyallahu taala anhu keroog bi nga xam ne sallallahu alayhi wasallam nee na amul benn jaam boo xam ne ngëmam yàlla dana ko daf maa bëgg dama gënal ko lépp lu yàlla sàkk Omar ni ko man de yaa ma gënal samay soxna yaa ma gënal samay doom yaa ma gënal sama alal man daal lu sama jëmmi bopp ji yaa ma ko gënal wala njaay xam nga day faral di wax naan saa bopp ma la gënal dug bañ naa la la gënal mu ne ko Omar kon dafa ngeen métagut sa lislaam des na ah Omar comme moom xam ne ko lislaamam des ah yow man xëy am gisuma la mbaaw Omar ni ko kon nag léegi ma ne wóor ni yaa ma gënal saa bopp mu ne ko waaw koy Omar sa ngëm a ngi doog a mat sa ngëm a ngi doog mat sa ngëm a ngi mat hadis la boo xam ne anas ibnu malik moo ko solo radiallahu taala anhu mu ne sallallahu alayhi wa sallam nee na laa yuminu ahadukum atta akuna ahaba ilayhi min waladihi wa walidihi wa naasi ajmahin amul kenn ci yéen koo xam ne ngëmam yàlla dana ko ko nangul lii ni daf maa bëgg man yam ci yàlla muhammad ba ma gënal ko ay doomam gënal ko ay waajuram gënal ko mboolem lu yàlla sàkk amatu naas bi yëpp bo demee ci riwaaya boo xam ni muslim moo ko solo moom daf ni ata akuna ahaba ilayhi min ahlihi wa malihi wa naasi ajmain kee daf ni wa waladihi wa walidihi mu gis ne kon faaw da ngay bëgg yonent bi ba mu gën a lépp rek yàlla door laa nangul sa ngëm waaye li fii yaa ngi am koy dendaleeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa ngëm yàlla nangoogu ko li fii yaa ngi am koy dendaleeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek sa ngëm yàlla nangoogu ko moo tax bu ma gisee ñi nga xam ne dañuy wax naan man maay soppe Muhammad ñu naan man maay ñooy nabiyee yi kenn mësu koo dégg am nabiyee moo xam ne nee na ma nga ne wàtt ak boppam neen xeesal ba mel ne tubaab mais su ba ci digg naa naan man maay nabiyee ñoo koy xam nga ne doon nabiyee de am nabiyee day fexe ba lu nëbbi yi di def mu di ko def lu mu tere mu ba ko ah alxuraan loolu la wax alxuraan nee na képp koo xam ne sopp nga Muhammad bu dee dëgg lii doo nga laa koy xamee waxul oh, in kuntum tuhibbuuna laa fattabi'uunii yuhbibkumullaah wa yaghfir lakum zunuubakum wallaahu ghafuurun rahiim suñu borom nee na képp ku sopp yoon ci yàlla Muhammad da ngay def fu yonent bi teggee sa tànk tànkam nga teg fa sa bos fu mu teggee tànkam nga teg fa sa bos yàlla nee na képp koo xam ne yaa ngi def fu yoon ci yàlla Muhammad teggee sa tànk nga teg fa sa bos mu ne la wóor ne man yàlla danaa la bëgg bokk yi ndax xam ngeen al mahabbatul ilaahi ilal abd cofeelu yàlla ci jaamam mbokk yi ndax xam ngeen ko ndem doomu aadama moo mën a sopp moroomam ba soppi ko waxumaa ko tol ni yàlla doomu aadama ndem moo mën a sopp moroomam ba soppi ko waxumaa ko tol ni yàlla mbëggeelu yàlla ci ab jaamam kenn munu koo xiyaas ndax bu leen fàttali yonent yàlla Muhammad daraja ji mu am jëpp cofeel gu yàlla am ci moom dong nga tax mu am ko mbëggeelu yàlla rek ilahi bëgg ko yàlla bëgg rek waaye bi mu koy defal li yonent yàlla Muhammad defalu ko dara bi muy defal li yonent yàlla Muhammad yonent yàlla Muhammad defalu ko dara kon cofeel gu am ci moom rek yàlla ni képp ku bëgg Muhammad ñu ma bëgg nag man yàlla danaa la bëgg ñu nekk ko waaw nu ñuy xamee nag bëgg yonent yàlla Muhammad mu ne du nu ñuy wax ci làmmiñ mooy fa tabiu nii fu mu yëkkatee ab tànkam teg fa sa bos ñu ne waaw loolu nees koy xamee mu ne mbëggeel waykatu waykatu arab ba wax na ko nee na inna al muhibba liman yuhibbu dani inna al muhibba liman yuhibbu mutix inna al muhibba liman yuhibbu mutix nee na képp koo xam ne day wax ni bëgg naa diw mu naa ah, mu ne bala ñoo xam ne mbëggeel ga dëgg la mutix da koy topp da koy roy da nga koy roy kon yonent yàlla Muhammad suñu borom nee na képp ku bëgg ma nangul la sa mbëggeel ci yonent yàlla Muhammad roy ko roy ko mooy lépp lu li baax mooy lislaam moo dagan saa boo xëyee nekk ca di def la nga mën ba jant so lépp lu ni loolaay li bon bàyyi leen ko baaxut bu ca jege dara bu ca laal dara bu ca jege dara bu ca laal dara waaye yonent yàlla Muhammad nga ne moom nga sopp mu ni bul xeesal nga ni ko ba mel ne tubaab koy bul meesu nga ni ko ba ci digg ginnaaw ah loolu ana cofeel ga bul def boppam neen nga ni ko fàng ci mbedd mi ana sa bëgg yoon ci yàlla muhammad ana sa bëgg yoon ci yàlla muhammad yàlla nee na gis nga du ma ci bëgg la de boo bëgg yoon ci yàlla muhammad topp ci ay tànkam nee na du ma ci bëgg la xam nga nu may def wa yaxfir lakum sunubakum dama leen dimbaay yàlla toppatuma leen dara ku faatu ma yóbbu la àjjana ku faatu rek ma yóbbu la àjjana toppatuma leen dara bu fekkee ne nangu ngeen a topp yoon ci yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam yonent boobu alayhi salaam la yàlla tànn wàcce ko ci suñu biir ñu dëgmal bisam yàlla def ci moom barke ba ku ko laal am barke yàlla def ci moom texe ba ku ko laal texe yàlla def ci moom mucc ba ku ko laal mucc yàlla def ci moom jubug mbir ba ku ko laal sa mbir jub Cheikh Ahmadou Bamba nee ci benn téeréem bu ñuy tudde Munawwirus Sudur nee na wa min mawa wa min manafii rasulillahi alli sarmadan salaamullahi baada salaatihi intifaawuhu maa qasdi intifaayi xayrihi wa qamaa mun moom sëñ Tuubaa bokk na ci njëriñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njëriñ yàlla def ci yonent yàlla Muhammad sallallahu bokk na ca njëriñ ya ginnaaw bi ma jullee sëlmal ci moom mu ne maa ngi leen di wax njariñ la mooy yonent yàlla Muhammad njëriñ li yàlla def ci moom da ko yéene képp ku yàlla sàkk kum seen ngay dox ci kaw suuf boo dee ab jullit rek day bëgg nga jariñu si njariñam loolu yàlla def ci moom intifaawuhu maa qasdi intifaai xayrihi bu sañoon yàlla njëriñ li def ci moom kenn ku ne ci ñi yàlla sàkk da nga am ci njariñ loolu ku bëgg a jëriñ ci yonent yàlla Muhammad mooy def sallallahu alayhi wa sallam jaar ci ay tànkam jaar ci ay tànkam Mhm. mu ne wa min manafii nabiil muntaxa sala alayhi rabbuhu ka mantaqa nasiatun minhu tawajahat liman li rabbihi amana fi kulli saman mu ne moom sëñ Tuubaa bokk na ci njëriñ yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam dinaa bi mu jullee sëlmal ci moom mu ne mooy nasiha laaya biir xam ngeen ni nee na ca hadis ba ad diinu an nasiha mu nu bokk na ci njëriñalam ci yàlla Muhammad laaya biiram goo xam ne da ko yëkkati jëme ko ci képp ku yàlla sàkk amul xàjj ak seen moom képp ku yàlla bind rek daf lay laaya biir boo nangoo ay ca muy sa bu lay laaya biir ndax dana la ci fayee ko weer dara mu ne déedéet li man li rabbihi képp ku gëm yàlla mi ko bind moom ko yónni ko ci kaw suuf li man li rabbihi aman képp ku gëm yàlla wóolu ko mu ne yonent yàlla Muhammad laaye biiram googu dana ko yëkkati jëme ci yow ngir ëllëg yowmal xiyaam nga texe bokk ci way dem àjjana yi laaye biiram googu doomu aadama yi fi ñu toll liñ gën a ragal mooy nit ku leen di laaye biir nit ku leen di laaye biir déedéet moom daal ku leen di wax ay karaamaaki mujisa rek ñu yàq seen alal di ko jox te fekk booba moom lim leen di wax bu ma la ko doon misaal mu ngi mel ni waajoo xam ne dafa tiim yàpp wu nu wàjji lakk ko ci fuur bi mu nag jël benn xalal bu toll ci di nam mu ñëw fab xale bi tiim yàpp wi naan xale bi yàpp wi ak a neex ay yi boo ko mosoon yàpp wi niñ ko wàjjee liñ ci def ci nangam liñ ci def nangam di ko wax neexitu yàpp wi na ko wóor ni xale boobu du yàgg mukk ba yàpp wi jariñ ko day dee rek waaye xale bi lu ko mën a jariñ mooy meewum ndeyam meewum ndeyam mooy lan mooy topp sunna si yontu yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam Cheikh Ahmad Bamba nee na wa min manaafihi nabiin muttaba alli i tasliman karim ittaba ibqaawuhu waraahu maa kafa li xayri diinihi lxasa fan kafa mu nu bokk na ci njëriñi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy desal gi mu desal benn secret bàyyi ko ci kaw suuf secret boobu jaami yàlla yi di ko donnal mu ne secret boobu nag ci lay aare diineem ji ci képp koo xam ne jot na ngir bëgg a lor diine ji képp ko xam ne dangaa bëgg a marginaliser diina ji wala nga bëgg koo détruire nee na am na secret bu fi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi boo xam ne nii secret boobee mooy gajj sa lu nga deltu gannaaw ba bàyyi diina ji moo tax kere ba ma déggee Cheikh Muntaqa yadallah wa nasarahu mu ne diine mu ne yoonu murit koo xam ne nii boo baaxoon ba baax bokk baax gàddu baax and ak baax di dem nga bëgg koo détruire wala nga bëgg koo marginaliser nee na doo ko mën mukk waxuma laa ko bon ba sànk bon ma ne ko wax nga dëgg de ndax loolu nga wax moom alquran ju nu fàng la waaye loolu nga wax na la wóor ni li tax moo di mënta am moo di ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Tuubaa mii jëwrinam daa jël yoonu murit seeyal ko ci biir lislaam te yonent boobu alayhi salaatu salaam la yàlla jox ab secret mu bàyyi ko ci kaw suuf secret boobu yi mooy secret bi nga xam ne képp ko bëgg a détruire wala nga bëgg ko marginaliser bu keroogee secret boobee dana gajj sa lu bon te benn jaam du ko mën a faj moo tax ma ne yoonu murit bi Sëñ Tuubaa seeyal ci biir l'islam moom tamit képp koo xam ne bëgg na koo marginaliser wala mu bëgg koo détruire bu boobaa secret boobu mooy ñëw gajj sa lu bon ndax yoonu murit mooy l'islam l'islam mooy yoonu murit moo tax mu ne secret boobu nga xam ne wàllu wi dañ koy donnante nit yàlla yi di ko donnante ibqaawuhu wara ak makafa ibqaawuhu waraahu makafa li xayri diinihi lxasa fankafa kenn mënu ci dara l'islam moo tax waxoon naa ca conférence bu yàgg defe naa bu ma jumul 2004 la woon benn conférence ñu laaj ma yoonu murit man leen yoonu murid li feeg lislaam a ngi foloote yoonu murid di foloote boobaa nag fii rek laa ko sësoon nag ci wax ji dong laa ko tegoon mooy gis naa ne sëñ Touba daa jël yoonu murid seeyal ko ci biir lislaam te lislaam yàlla garantil na ko yent yàlla Muhammad ne képp koo xam ne jóg na bëgg koo détruire doo ko nettali bon foofu rek laa ko teg mhm. nee na wa min rasulillahi alaihi taslima alhaali ilahi an la yasaala sikruhu murattila man lam yurattil xuttila mu nu bokk sallallahu alayhi wa sallam moom sëñ Tuuba moo di ni alquranul karim mi nga xam ni moom la yàlla wàcce ci moom ñu di ko di ko sallam ni alquran du dañ mukk di ko jàng ci kaw suuf ba keroog may nam ma yëkkati jëlee ko ci kaw suuf man yàlla mu ni képp xam ne nag loo jàng alquran di ko tartiil na la wóor ni yowmal xiyaam yàlla doo la bëndox ca safara mhm. alquran du dañ mukk mboolem ñi nga xam ni ñu ngi jóg ngir bëgg a détruire daara yi ak détruire alquran ak détruire dongay daara yi ak bëgg a marginaliser daara yi déglu leen waxi sëñ Tuubaa ji sëriñ daara yi leen doon rey di leen daggate di leen lakk di leen jëri ñuy naaw du tey ñuy jàngale alquran buñ leen doon rey di daggate di lakk laa du tey ñuy jàngale alquranul karim xanaa ñu dem ba yàlla nam ma jëli jël jël alquran ci kaw suuf rek te loola moom wal iyaasu billah ndax alquran moom bis bu jógee ci kaw suuf rek addina bi far incha allah alquran bis bu jógee ci kaw suuf àddina far incha allah Sëñ Tuubaa ni alquran du dañ mukk ñu di ko jàngale ci kaw suuf ba keroog yàlla di ko nam ma yëkkati rek mu ni képp koo xam ne nag nekkuloo ci kaw suuf di jàng alquran ak a jàngale xuti la daañu la ba max safara daañu la ba max safara <coughs> ngeen ma bañ ngeen kii rek moo tax ma forcé def émission wa min mu ne moom sëñ Tuba wa min ajaibi ibni abdillah sala bi salaami la baaxin addaaha ardahu bil awliya ila alxiyaami wa kullu waliya mu ne mi ngi garanti moom sëñ Tuba ni alayhi salaatu wasalaam nii yàlla ma jullee ci moom sëlmal ci moom mu ne na ci kaam kaawteef yi ko yàlla jox mu indi ko ci kaw suuf mooy am na secret bu mu fi bàyyi boo xam ni mooy leeral suuf si mooy barkeel kaw suuf mu ni secret boobu wàllu yàlla yi ñoo koy donnante ba keroog yowmal xiyaam ilal xiyaamati la wax secret boobu wàllu yàlla yi ñoo koy donnante ba keroog yowmal xiyaam akbar secret boobu nga xam ni wàllu yàlla yi ñoo koy donnante ba ilaa yowmal xiyaam moom la sëñ Tuubaa di wax ci mu mm, nawru sudóor nag ni bokk na ci kiimtaani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu bàyyi fi secret boobu wàllu yi di ko donnante ba keroog ñu naan suba la ñuy tàbbi àjjana يونت بوب موي ريفيرانس ادنا بي موي ريفيرانس موند بي لقد كان لكم في رسول الله حصوة حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا على القران وصورة سوره الاحزاب سن بروم نينا صلى الله عليه وسلم موي ريفيرانس بي صلى الله عليه وسلم موي موديل بي غيسنا بنن موديل بو ام بور بي صلى الله عليه وسلم ياك موم الله دا نين جاري سفانو اجنا مدل بو ام لا بور رسول الله ياك موم الله دا نين سفانو اجنا bu fekkee nag kookee ngay roy daa roy yonent yàlla Muhammad waaw kay sëriñ bi ngay roy yonent yàlla Muhammad la roy yow kay yaa ngi mel ni ku roy yonent yàlla Muhammad yow mu roy sëriñ bii roy yonent yàlla Muhammad yaa kuy roy yonent yàlla Muhammad yéen a yem ndax sa alayhi wa sallam loolu la ñu alquran wax wa in tutiihu tahtadoo suñ borom nee na Muhammad mooy ki nga xam ne ku ko topp jub ci aqi rasulillahi la yàlla waxee lii de yàlla nee na ki nga xam ne ku ko topp jub mu ne yow nag yonent yàlla Muhammad wa ma ala rasuli ilal balaaxul mubin yow jottalee la war rek nee yàlla nee na ku ma topp man jub ku la topp baax na ku la topp acca fi la may fekk ma nga sóoratu nuur wayin titihum taxtado moo tax Cheikh Ahmad Bamba ni ko muhammadun xayru man yamsi ala qadami muhammadun xayru man lillahi qad sajada muhammad mi mooy ki nga xam ni képp kuy dukkat ci kaw suuf sa bopp jëm kaw say tànk di tege ci suuf yontu yàlla Muhammad la gën sëñ Tuubaa ko wax de xanaa kon loolu moom jullit ak yéefar ñëpp a ngi ci biir ñu ne waaw mu ne Muhammadun xayru man laqad sajada képp koo xam ne nee nga da gëm yàlla bay xëy di rëkk sa jëbi ci suuf ak koo mën a doon rasulullahi la gën alayhi salaatu wasalaam loolu la sëñ Tuubaa wax yonent boobu moom képp la yàlla wax ci xàqam ni ko wa rafanaa laka sikrak yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku la tudd te tudd ma man yàlla aw soxla ci tuddam waaye ku ma tudd man yàlla te tudd la aw ma soxla ci tuddam dañ ñuy boole tudd rek moom daal nu mu ko waxee soow ak suukar nga yëngal ba mu seey boole naan mbaa boole tuur rek suñ borom nee na noonu laa mel ak yonent yàlla Muhammad maa ak yonent yàlla Muhammad suukar ak soow lañu boole naan mbaa boole tuur wóor na naa lakk sikrak ku la tudd dana ma tudd mbaa ak tuddam du baax. ku ma tudd dana la tudd mbaa ak tudde du baax loolu suñ borom wax yonent bi sallallahu wa sallam moo tax sëñ Tuubaa ni ko labista siyaamal majdi wal fadli wal ula wa fiika min al ma ahjasal kula allahu akbar seet tit déggal ma ji wax rek moo tax yonent bi moo yey teral sëñ wax ju foq nopp bu ni sëñ tubaax na ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ko tedd nga tedd nga ba ko yàlla sàkkee ba noppi def ko muy mel ne mbubb teg ko ne yant yàlla muhammad yaa ko sol mu yem ci kaw képp ëppul yeesul labista siyaabal majj ba ko yàlla sàkkee ba teg ko ne ngëneel moomee mbubb ma bañ ko solee daalaa jot yem ci yow képp ëppul yeesul mu ne ko gis nga li yàlla def ci yow ci ay jikkoy makaarimal axlaa lott noonu ko yàlla sàkk lott noonu ko yàlla sàkk makaarimal axlaax yàlla def ci yow lott noonu ko yàlla sàkk moo tax mu ne ko la anta imaamu rusuli xad jaa annahum laqaa laqaa xawka mu ko xet ci bayit ba bam la anta imaamu rusuli قد جاء أنهم لقى قوك في الإسراء والكل قد صلى bu fekkee juuma ca bayit ba loolu la ko waxee mu ni ko waaw kay talaqawka talaqawka la mhm. daf ni ko la anta imaamu rusli qad jaa annahum talaqawka fi l isra wa kullu qad sala mu ngo bayit baa ngi leen doog dikk sama xel mu ne ko yow sëñ yow yonent bi sallallahu alayhi maa ngi giñ sëñ Tuubaa ko giñ de laa mu xasam la daf ko giñ la ant maa ngi waat ci yàlla ni yow yow imaamu rusli ku yàlla mas a yónni yaay kilifaam ku yàlla mas a yónni yaay kilifaam mu ne ko xam nga luy luy tegtal bi dalil bi mu ne mu ne ko talaqaw ko fil isra keroog ba la yàlla di rañaane ñoom ñëpp dañoo wàcc asamaan yi dajeeg yow ca bayti baytil maqdis nga jiite leen fa julli ñoom ñëpp kenn ku nekk bàyyi koo nga fa nga nekk dikk ca baytil muqaddis teeru yonent yàlla muhammad mu dikk jiite leen ñaari rakka doog a continuer mission talaqawka fil isra mhm. moo tax imaamu Bushayri radiallahu taala anhu nee na imaamu Bushayri nee na muhammadun sayidul kawnayni wa saqalayni wal fariqayni min ajami Muhammad mii sëñtu Tuubaa di wax ñu ne ah mooy sangu bu àddina mooy sang bu àllaaxira mooy sangu diggante nit ak jinne saqalayni mu ne gis nga mooy sangu diggante ñaari xeet yi muy lan mu arab ak ajam diggante arab ak ajam mooy kuy lakk arab xeetu arab ak keneen ku dul arab foo mën a ne ci àddina bi yonent yàlla Muhammad sa sanga yonent yëpp ñëw sukk ci kanamam ni ma ko waxee léegi teeru ko baytul muqaddas ànd ak moom julli imaamul buseyri di ko junj ci xasidaam nga naan kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min al bahri aw rasfan min ad diyami kon sallallahu alayhi wa sallam du ma pandoo waxoon naa ci weneen waxtaan bi nga xamee ne nii diggam ak ci yàlla isa du fi xaj du fi ndax waxtu wi jeex na seen kër tegal na lu bari te maa ngi war a dem ci majlis bi pour jàngale waaye dara jaam daal xel munta lijjanti ba xam ko Sëñ Tuubaa junni na ko ci muqaddima maqaamaatu xayri alxalq an xayri rabbihi muqayyabatan faltaqar an suurati najmi suuratu najmi lu suñ borom wax suñ borom dafa définir ay quelque darajay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci saar woowu di sóortu nañ mi nee wa nañ mi isaa xawaa maa dalla saayibuku wa maa xawaa wa maa yantiqu an alxawaa in huwa illaa waxyun yuuxaa allamahu sadidu alquwa sumiratin fastawaa وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كسب الفحاد ما رحى إلى آخر إلى آخر السورة définir na ay quelques dara rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ak i maqaamaam ak i xam ngeen al isra bari na ca waaye xam ngeen ni li gën a jafe mooy ñi nga xam dañ ko jàpp woon majnuun muy ku dof wala ku réer suñ borom xamal leen ni yonent yàlla Muhammad mii nga xam ne mooy seen sëriñ maa dalla saahibukum seen sëriñ bi defut dara wokk ko wamaa xawaate jéggiwul daya de bokkut ak sëriñ si nga xam ne dañoo jéggi daya de naan ku ma gis texeek ku ma def nanga nangamat te fekk nag la yàlla xam doy na mu ne woon ci yàlla Muhammad bokkul ci ñooñu de ñooñu xam ne dañoo ëppal bëgg ñu leen gëm bëgg tiraange dina tax maqaama ju nekk ñu woote ko daraju ju nekk woote ko ku ma gis texe ku a gis nangam mu ne bokkut ak ñooñu de wamaa xawaa ko lu tax mu ne moom wamaa yantiqu anil xawaa du waxe bakkan lu mu wax yàllaa tax yàllaa koy déey mu doog a wax wamaa yantiqu anil xawaa lu tax in huwa ilaa wahyun yuuhaa baatu al ufuqul axla bu ñu seetee mu fasiroone dañuy wax ne jibril la moom la fa gis bee boobu di al ufuqul axla waaye jibril alayhi salaam ñun ñëpp jàng nañ ni jibril keroog ba mu àggee sidratul muntaha mënatula jéggi benn jéego sallallahu alayhi wa sallam moom dafa continuer weesu sidratul muntaha ba àgg ni ko alquran waxee suma danaa fata dalla fa kaana xaaba xawsayni aw adnaa xaaba xawsayni muhidin ibnu arabi ni ko misaale mu mel ne xocc ak xalaga waaye waxu bil ufuqul axlaa ji nag jibril nu ko yonante bi mën a bàyyee sidratul muntaha mu ne mënatu la jéggi benn jéego kon day seey ci leeri borom bi ba noppi di dem al ufuqul axlaa béréb la ci béréb bi suñ borom yi fa ko soob te suñ suñ borom rabbi si jàlla ca gannaaw sidratul muntaha ca gannaaw sidratul muntaha nit yàlla yi ginnaaw rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dem dañ leen di wàññi ci ay baaraam ni nga xamee ni ñu bokk ci fardul jaamia maa ngi wax ci tasawuf ngeen baal ma foofu laay jeexal waxtaan wi sax ñi bokk ci fardul jaamiya nga xam ne lennat lañu nga xam ne ñoom xamuñu kenn ku dul yàlla mi leen bind te moom leen rek ñoom ñooñu sax li ñuy foor foor ñenn dafay dem man day ma wax ko def naa mosul naa ko wax lu weesu la tayit man toujours damay wax ni lépp lu may wax lu nekk waxuma ko ngir wane dara dama koy rek fi sabilillahi taala du ma dépassé du ma Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu bi ma gënee nekk xalal dama ko mas a gént séen ko muy dem